trois espoirs. waaw asalaamaaleykum Boucar maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar bu baax a baax di sant yàlla jur suwent bi sant suma ñaari waajur di nuyu waa kër Cheikh na Sadou Abi di nuyu waa kër Cheikh na Oudou Mamin gépp gépp gépp di nuyu sama famille yaay muy waa kër maam Cheikh Lim Duma Seck di nuyu sama famille papa muy waa Samba yëpp ak waa Maja Kàdd maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di jox seen wàccuwaay bu baax a baax di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp waa kër maam Borom Touba waa kër maam Alaaji Malick waa kër Abdou Khadir Jilaani suñu mbokk Ceerno yi waa Kër Bamba Niass Medina Baye maa ngi leen nuyu bu baax waa Laayeen mm-hmm. kilifa diine kilifa aada yëpp maa ngi leen nuyu di leen jox seen wàcc waay bu baax mm-hmm. di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bi ci jàppale bi mm-hmm. ci ñaan ci ñuy ñëw stade ak ñuy ñëwul stade ak nit fu mu mën a nekk nekk sama mbokk waaye nga sama soppe wala sama xarit jàppale ma defal ma ñaan dooleel ma ba yàlla may ma ndam maa ngi leen sant bu baax a baax di encouragé suñu camp bi ñu doon bëreer muy waa parce que Pikine Guédiawaye benn la ñoo bokk waay donc ñu ngi leen encouragé comme ni ma koy waxee di félicité seen mbër duñ ko encouragé dañ koy félicité Balla suñu grand mu nekk champion boo xam ne champion bu confirmé def lu mu war def ci làmb yëpp ñu ñëpp nga nekk mbër ak nga ñàkk mbër foo nekk da ngay xam ne champion bu mérité lépp la koy nangul mhm. donc ñu ngi koy félicité di ko ñaanal jàmm moom ak encadrement ak njabootam ak ñëpp ñu mu nekkal waaye di kontaan ci jotaay bi tey mhm. waaw di nuyu le premier magistrat de la ville de Pikine. Mhm. muy monsieur Ablaye Timbo. Mhm. suma papa. Mhm. waaw parce que moom dama am ñaari cër ci moom. moom dafa nekk maire Pikine. kilifa kilifa yëpp. muy benn cër bi. moom bu nekkee kilifa Pikine daf maa yëlif yëlif ñu nekk Pikine yëpp. yàlla moo ko def ñu nangul ko ko. beneen cër bi mooy dafa nekk sama papa. mook sama papa ñu fowandoo ba ñu nekk xale ànd def seen enfance yëpp. donc loolu mu nekk sama papa jur ma am ci man cër comme sama papa am donc ñaari cër yooyu laa am ci moom muy ma lépp nag mu mu wane ko tamit mm-hmm. daw ci benn responsabilité vraiment mm-hmm. combat bi dama ma taxaw bu baax jàppale ma mm-hmm. parce que jàppale mbër dëgg la bu combat bi jegee baax na mais foo muy méttee mooy combat bi des quatre cinq mois ba six mu war a dem antenne ji mu war a ànd ak mbokkam mu war a dem dugg regroupement mu war a dem ay saraxam mu war a dem woo ko bu mu ñëw nga yëkkati chèque bu am doole bindu ko na ko am demal nga def sa préparation mu jeex fii loolu soxla woo ma waaw combat bi combat la xamal loolu te bul xam nga waaw te loolu noonu lu yomb daal bëgg loolu nag ma defal wax ko Pikine yëpp xam yëg ko Pikine yëpp ko mm. ne ko dafa nekk maire boo xamante ni tawul benn responsabilité mm. te ni ma koy defaree la koy defalee sama mbokk mbër yi nekk Pikine yëpp mm. ku ci nekk boo amee combat dangay bind dugal sa subvention ñu teg ko sa loxo nga waaj ak say mbokk donc loolu dafa baax ñu leeral ko jeune Pikine yëpp ñu xam ko mm-hmm. ne mi ngi ñuy taxawu mi ngi ñuy jàppale te bu ñu ko defalu woon tamit suñu papa la waaye dañuy wax ni defaluñu ko waaw di nuyu sama papa Lamine Thiam Togo mm-hmm. di ko ziar di ko jox ci wàccuwaayam bu baax comme ni nga ko waxee sama papa la sama mbokk la ku fi teewee teewal na fi géwal yi teewal na fi sama nijaay mm-hmm. teewal na fi su sama mbokk géwal yëpp waaw parce que man doomu géwal laa ci yaay waaw donc kenn mënu ma génn ci ñoom ñu am cër ci bu mag su bari bëri ñoom ñëpp ñu am pression maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama ménager sama père Bourkhane mm-hmm. comme ni mu ko waxee sama papa la ñu ànd quatre-vingt mille ba léegi mooy jàppale xam nga mm-hmm. da ci sonn bu baax parfois dañuy nekk di di ànd ak man fu nekk mm-hmm. ay mag lañu ñu seen sant mayu leen ko sax waaye xam na ni kii suñu doom la donc cër bi ma war a jox si ñoom rek laa leen jox ñoom ñu telloo ma ko bu baax a baax waaw sama papa moom du ma ko nuyu moom mooy sama lépp xam nga mooy kanam mooy ginnaaw mooy góos mooy turaat mooy kaw mooy suuf xam nga moo géré lépp kon bu ñu bu ñu jugoon fekk suñu papa nekk ay dimbalu mat wala ñu nekk ministre wala député kon dañuy dem dañuy dem topp kay yi quoi mm-hmm. waaw dañoo ñëw fekk ngeem ci kër gi mm-hmm. kon ngeem ko boo xam ne loolu teel la quoi waaw loolu kon incha allah ñu ko jox mm-hmm. kon kooku dañ ko war a fonk parce que moo waral ba xam nga moo waral lépp ñëw suñun quoi comme mooy suñu papa quoi moo ñu jàppale ba ñu yegg fii mu dégg ci moo ci carrière bi lu ne mu neex mu metti waaye dawul benn yoon waaye gaynde la mu ngi taxaw assumé lépp xam na loolu ñu ngi ko ñaanal di ñaan lépp lu ñu am ci làmb bu ko fekkee waaw bu mu ko dal bu yàlla bu mu ko am bu lépp ñu ko lépp ci làmb ba mu kontaan ci làmb ba mu kontaan suñu carrière incha allah. suñu papa Talla Diop waaw ak sama mm. ñii ñoo dalal ba mm. waaw man soo papa moom moo ma yor moo ma nekk xale dugal ma box ak lépp mm. mais ba ma commencé dal baa bëre dañ may indi pikin mbooloo sama papa Baba Diallo mi nekk entraîneur soo papa Paala nekk fa sama papa papa Diop Basson mhm. maa ngi koy ñaanal si moom dafa ko tar nekk fa sama mhm. papa soo Diop nekk fa ma ñëw jaar dalal baa foofu mhm. fekk fa ñoom cek ñoom Boy ñoo ma fekk leen ci ñooñu laa jàngee bëre donc waa ma seetlu ma ci ñooñu laa jàngee bëre ma ñëwoon yor sama saak jóge école damay ñëw ñun ma looy def ni man la damay ñëw seeraan nii ñun ma si meew xëpp ma suuf jël sama saak bi sànni ko fële waaw ma nekk ci biir ñuy fëkk di dóor di dóor suuf ba guddi jot ma dem nelaw bi xam ci noonu laa jàngee bëre mhm. moo tax maa ngi sant ñëpp ñëpp mhm. nuyu deux cent pour cent Pikine bi mhm. ñëpp ñu ñëw ñun suñu waaw ah, loolu cër boobu su ma ko am doom ak bàyyi boobu bi jox ko teel suma diggante woon mm-hmm. maa sant nag ñëpp di gërëm ñëpp ku may jàppale ak ku may ñaanal foofu ci nekk mm-hmm. maa sant bu baax di la gërëm bu baax a baax mu gën a bàyyi xel mm-hmm. piginuwaay mu gën a bàyyi xel ñu nekk ci làmb jeunesse bi gën leen jàppale rek waaw projet yu mu mën a teg rek. Mm-hmm. pour jeunesse bi wala projet yu mu mën a teg rek. pour comme ni mu koy defee. mu gën ci teg loxo. Mm-hmm. parce que gars yi moom fa la ñuy wax mbër bu jóg rek nga gis ñu topp ci ginnaaw dañu ko waxee. Mm-hmm. ku nekk yaakaar ci yow. dëgg li ngay feeku ci làmb sax dina lu méttee. fere yi sarax yëpp ñëw. ñu daan yi. waaw Dakar yi sonn ci yaw ñu koy waxee. ñu nekk seen ginnaaw ñu nekk seen mbokk la. daa ngi sonn nga am was es froh.